mardi 26 janvier 2021 mbokk téléspectateur Equivox TV asalaamaaleykum nuyu naa leen di am mbégte rek di jàkkaarloo yéen saa su nekk nee naa leen nag nii lay demee ci seen journal de l'arène lépp rek loo xam ne rek duppee na ci euh, li nga xam ne rek moo di arène bi dinañ daal di toog fii faram fàcceel leen ko mais nag du ci wéet benn yoon ndax saa su nekk rek maa ngi ciy ànd ak sama góor bu ñaawul bi di Babacar Babacar nuyu naa la. soxna bi maa ngi lay fay di la jaajëfal di nuyu internet yi yi ah di leen ñaanal jàmm di toog ak yow quoi macha allah di la ñaanal jàmm saa su nekk rek. Amin Babacar. ba yaa ngi am tawféex rek. comme ni nga ko waxee saa su nekk. <laughs> maa maa maa sant yàlla quoi maa sant bu baax a xam nga comme li ma la wax chaque rek. Mhm. moom soo yeewoo rek nekk si rek xam nga. santal sa borom parce que loolu amul prix ma ne su koy jënd yàllaa koy maye yàlla na koy defal ñëpp saa su nekk rek barke yonent bi kon nag yàlla jàmm yàgg balaa boobu rek dem seetaani nag euh, revue des titres daal di dellusiwaat rek ci plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 26 janvier 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey fa mu xëy wala boog tey li xëy fis ci xëtam mu njëkk bokk na ci ka nga xam ne ni moo di Ngagne Diagne bu daal la tey dalal Ngagne Diagne nag tey mu nga ñëw di décortiquer combat bi nga xam ne ni moo war a dox ci diggante rëg-rëg bu caaroy ak guy gi bu école dalit moo fa dem ca way mel ni ki nag ñaari mbër yi moom alaaji Ngagne la mu jàpp moom jàpp na ne ci wàllum xeex moom jarut ñu leen fay xaar ndax xeex moom maanaam nekku ñoo ñoo xam ne daal wàllum bagaar dañ cay wane seen bopp bu baax a baax baax a baax moom ngañ jañ daal gis-gis boobu la am ba tey ñëw na ci ñaari mbëri ci côté technique maanaam xam-xamu bëre jàpp na ne ki nga a la ngañ gis moom na la mu dajale ci ay xeeti technique bagage technique ba mu yore daal bëri na ba yegg ci lool ci côté staff tamit ngañ daañ wax na ci jàpp na ki nga xam ne nii moo di gi am bu baax moom moo doon nekkoon Mor Fadam nekkoon koo xam ne ni ci côté am daal maanaam ci wàllum xam-xamu bëri raw ko ca doon na jafe moo tax mu ne nag ñàkk na ko tey waaye tamit ñëmu ca ne na ki nga xam ne moo di rëg-rëg tamit lu jëm ci wàllum staff moom daa jàpp ne staff ba mu yore tam day staff boo xam ne nii bu leer la bu baax a baax a baax a ba ay force tamit jàpp na ne ci wàllum force daal maanaam doole ne na kii di guy gi moom mësu koo ñàkk maanaam ñëw ci làmb wala boo nga gis ko mu ñàkk force moom wala doole ne na loolu mësta am ba tey bu dee rëg-rëg la ci wàllum force ak doole jàpp na ne moom la ca am lu naturel la ci moom la xam ne ni la daal boo xoolee ci moom la nekk ba tey lu jëm ci wàllu mystique tamit jàpp na ne ki nga xam ne nii moo di guy gi leen lu jëm ci wàllu mystique du ko foye maanaam daal du ko bàyyee ginnaaw wala mu koy négliger rëg-rëg tamit daa jàpp ne moom bu dee ci mystique la jarta wax nganjaañ ba tey mooy wax ndax jàpp na ne kii di rëg moom wàllu mystique da caa jël boppam blende ko loolu mooy la nga xam ne nii moom la nu xëy tey gis nganjaañ di ko wax keneen koo xam ne nii moom mu nga xëy di wax ci rëg-rëg muy Pape Demba Kane mi nga xam ne ne moo jiite MMA fii ci Sénégal moom daal nee na gis na rëg-rëg ci fa nga xam ne ni mooy MMA ba mu dem ci ci niveau boo xam ne ni daal niveau mondial lay doon fu sore sore sori moom Pape Demba loolu la xëyate tey di ko wax keneen koo xam ne xëy na di wax muy commandant ma nga xam ne nii nag maanaam moom lañ tudde ki fi nekkoon maanaam responsable bu jëm ci wàllum sécurité fa nga xam ne moo di ca CNG ba commandant Thioune nag tey xëy na di wax jàpp na ne huis clos daal xanaa boog huis clos parcelle daal la jàpp ne war naa mën nekk moom commandant tey moo xëy tey ci yëglikaay bari sunu lamb di fa wax keneen koo xam ne tamit xëy na tey di wax ba ay rongoñam tuuru muy tafaa booy bambara ma nga xam ne nii daal mu nga dëkk ca ñaari tali nekk école booy bambara nee na day moom digganteem ak booy bambara nee na la fa dox mënu ko sax wax wala mu koy netti ndax nee na ci maanaam booy bambara wala ci barke booy bambara nee na moom buñ ko xamee ci lamb nee na booy bambara moo tax nee moo tax fi mu nekk nii daal la muy wax ci moom nee na sax du ko mën a xam xanaa kay lenn dong la mën a def ñaanal ko yàlla yàlla jéggal ko te xare ko aljan mel ni ki tey ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu lamb ak beneen xale boo xam ne mu nga école Mansour Mbaye ñu koy wax petit ñaa moom nag la mu xëy tey di ko wax maanaam ay géntam ci làmb daal bokk na ci daal réussir ci wàllum làmb ne lii moom moo di ay géntam leneen loo xam ne nii moom bu ñu ko yaakaaree ak gént ndax nag sore na gént lool maanaam dëgg pire la muy Modou Lo mi nga xam ne daal mooy la roi des arènes ak visite boo xam ne wala boog seeti goo xam ne demoon na ko seeti ka nga xam ne moo di Aziz Ndiaye mi ngeen xam mu loolu nag yëglikaay bi di Assis ginnaaw ba mu demee siyaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñëw àndoon caag Balla Gaye numéro 2 kii di Modou daal moo ko bett bërki démb ca këram moom Aziz Ndiaye daal di ko siyaar si seet si ko nuyu si ko mu mel ni ki nag moment yooyu moom moment la yoo xam ne ni yu neexoon neex la fa nga xam ne ni moo doon ca kër Aziz Ndiaye sunu làmb xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noon ba tey buñ fa jógee dañuy jubali record record moom que xëy tey dalal mooy Abdou Badji mi nga xam ne moo fi nekkoon ancien technique national ci wàllum làmb ji wala wàllum bëre moom nag mu nga xëy ci performance yi ki nga xam ne nii moo di rëg-rëg Abdou Badji daal wax na juróomi mbir ya nga xam ne daal moo tax rëg-rëg ay performance am di a yokku leneen loo xam ne nii record xëy na tey gëstu ko muy école dalit Mor Fadam ak bu Balla gay ak bu booy Bambara jàpp na ni ñii de fi mu nekk nii wet nañu ndax Mor Fadam dem na bàyyi fa ña nga xam ne nii wala boog bàyyi fa la nga xam ne mooy école ba nga xam ne moom la fonde woon Balla Gaye un itam dem na bàyyi école ba mu fondé woon Boy Bambara kazalika naka noonu mel nekk nag fi mu nekk nii daal ñañu bàyyi daal dayoo loo ci mën a dégg ba tey yëglikaay ba xëy na xamal ñu ne daal ñoom ñooñu nga xam ne ñooy ñetti ñooñu boo bëggee dégg dëgg formé nañ ay mbër yoo xam ne ni tey kenn dootu leen nattable ci wàllum làmb muy booy bambara muy ka nga xam ne nii moo di Balla gay ba ci Mor Fadam kon ñun liñ mën a def mooy ñaanal leen yàlla yal na leen yàlla yërëm te xare leen aljana te loolu nga xam ne def nañ ko ci ay doomi jàmbur ba tey ñu du leen dégg wala ñuy tedd yal na leen ko yàlla defal ay ngëneel ak xéewal fay leen ko ci seen biir bàmmeel ñook néew julit buñ fa fekk ak bu leen fa fekk addinaa ngi noonu boo fi nekkee jéem la am njariñ moo gën a wóor yal na yàlla nangu ñaan Babacar looloo nekkoon nag revue des titres ñu daal di ñëw ak yéen rek ci seen journal suñu làmb Babacar ñu daal di attaqué li nga xam ne moo di journal bi kii di euh, kii di Ngagne Diagne nekk fële ca iRadio daal dina ñëw rek ci combat rëg-rëg ak guy gi décortiquer ñaari nit ñooñu loo ci mën a wax waaw alaaji Ngagne Diagne bu iRadio ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu suñu frère bu mu nekkal foofu muy Mamadou Diouf tamit ñoom ñëpp nekk iRadio mhm. ak suñu grand frère Malick Thiandoum ñoom ñëpp maa leen di bëgg di nuyu groupe E-Media yépp ah mhm. waaw di wax ne Alaaji Ngagne Diagne nag defe naa tey eh, ci làmb moom yaakaar naa ne ca RFM hmm. ba tey ci rajo defe naa ne lu la ci wax des fois ah da nga koy bindi téere ndax lu mu xam la macha allah defe naa tey bu xëyee ñëw ci ñaari mbëri décortiquer seen taxawaay ci làmb muy Gouye Gui ak Reug Reug ci combat bi ñu defe naa war na ci man a wax parce que li mu wax am na ci côté eh, maanaam bagaar maanaam xeex jàpp na ne ñaari mbëri xëy na du ñu nekkuñu ñoo xam ne dañ leen naan ñi ay xeexkat dëgg-dëgg la ñu loolu tamit defe naa lu ñu war a lu ñu war a mën a gis la lu ñu war a mën a nangul donte tamit mën nañoo xeex xëy na nag xeex yi dafa bokkul nuñ koy defee muy Reug Reug muy guy gi leneen loo xam ne tamit ñëw na ci mooy ci ñoom ñaar ay bu ñu jàppee maanaam jàpp na ne ay mbër la guy gi fooram jàpp la ci côté technique la wax maanaam guy gi effectivement guy gi mbër la moo xam ne moom bu saa la jàppee moom ami jàppal ne moom dugg nga ci guta waaw côté technique bi moo tax mu ne ko loolu fooram la rëg ah, ah, euh, ñu am combat boo xam ne bu neex neex la ndax ñoom ñaar kenn du ci fay làmb waaw c'est vrai Babacar ki nga xam ne nag moo di guy gi man guy gi ba ma xamoon loxo bi gaaw na de waaw waaw waaw non xam non guy gi day dóor parce que dóor na fi sos dóor na sos mu daanu te nii ma gisee rëg-rëg tamit ci MMA bi nam dóoree Alain Ngalani waaw tooy na waaw moom it xam nga ne ku dem ba ci MMA faw nga jàngaate xeex jàngaat ni ñuy xeexee mm-hmm. ay xeexkat lañ mais xëy na ngañ fi muy waxee mooy mm-hmm. tey boo tey boo tuddee benn Gris Bordeaux wala benn la de Guiers wala ñooñu dañ naan lañ ñi ay xeexkat lañu mm-hmm. parce que dañ ko wanee ci lutte avec frappe bi xëy na ñi nag des fois dina ñu xeex parce que làmbu dóor la ñuy def mais par rapport ak ñooñu xëy na foofu la alaaji ngañ di waxee mais nag da di nit ki loo nekk si benn mbir di ci gën a dem di nga gën a yokk sa niveau gën a yokk sa xam-xam parce que ñoom ñaar ku ci ne mën naa ne yaa ngi xam ne rek moo di Pape Demba Kandji président MMA bu Sénégal daal di ñëwaat ak ñun ci ki nga xam ne moo di euh, rëg-rëg waaw Pape Demba ñu koy nuyu di ko ziar defe naa li mu wax tey mooy que rek rëg-rëg ah gis na ko mu sori mu war a mën a sori waaw loolu moom war a mën a ne ci kaw moom xëy na la ci war ci mbir mi mu di ko def maanaam mu gën a liggéey loolu nag loo xam ne daal yaakaar naa ne et lenn la rek liggéey la rek kon na gën a liggéey rek parce que dugg na ci ba pare kon na gën a liggéey ba tey Babacar ñu des rek ci combat huis clos yi nga xam ne ñu ngi jeexi jaaxaan ndax dina am wala am hmm. ki nga xam ne nag moo di commandant Thioune di ancien responsable sécurité bu CNG dal dina ci dikkaat xam ne rek ne huis clos bi mën na doon loo xam ne dafay partiel maanaam ñu def ko ci benn boor maanaam boor bi am boor bale bañ a am commandant Thioune mu koy nuyu di ko ziar séeri ab sa maa ngi koy bégee hmm. moom yaakaar naa ne tey làmb moom wax dëgg marqué na ci empreinte am ñu koy ñaanal gudd fan ak rek et wax na dëgg ah waaw que tamit pour man bu ñu ñëwee ci wàllum huis clos war nañ caa wut benn solution boo xam ne nii xam nga solution bi tax la nit ñi mën a am ñu mën a dugg am ñu xaar defe naa loolu mu wax tamit lu jar a bàyyi xel la huis clos parcelle maanaam am ñu tooge droite ña ca des def ne pour que mbir yi mën a jaar yoon quoi c'est ah, normal te mooy dëgg ah, ah. ba tey rek ñu des ci journal suñu làmb kii nga xam ne rek moo di Tafa Boy Bambara Boy Bambara pleure son mentor maanaam ki nga xam ne moo di Boy Bambara rek mu nekkoon référence am mu ngi koy jooy ba tey waaw nekkoon turandoom parce que bi muy bëre mhm. moom mooy papaam te effectivement te noonu mhm. mais xëy na rek nekkin bi mu nekkoon ak moom ak ni mu ko jegee woon ak ni ko paa bi doon jàppale mhm. loolu tax na lu ba loolu amoon àddina nag moo tëddee nii li koy wax mooy jaalewaat ku góor gi rek di ko wax mu muñ àddina moo tëddee ku fi fi nekk rek bés dina ñëw nga jóge fii ci kattanal sunu borom lay doone kon Tafa booy Bambara ñu ko ñaar ñaanal di ko jaale mm-hmm. Boy Bambara di ko jaale waat waa Grand Dakar ñaari tali bi yëpp di wax ne ko daal àddinaa ngi noonu mais wax dëgg yàlla dana ko manqué bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla te mu dëgg lii rek la wax ne mag dafa baax ci réew nekkee ndaw da ngay soxla koo xam ne da lay tette déet euh, réew moo dugg mm-hmm. ay mag buñ fa manqué wala kàddoog mag manqué fa tiital mm-hmm. waaye réew moo dugg itam boo fa gisul ay ndaw ah tiital kon defe naa loolu mook àddinaa ànd ndaw ñi nañu déggal mag ñi mag ñi yërëm ndaw ñi su ko defee affaire yi dina gën a baax te mooy dëgg Babacar comme li ma faral di la wax rek Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar ginnaaw Aziz Ndiaye ba moo ñibbisee Màkka ki nga xam ne moo dul moo di Modou Lo dem na rek rendre ko visite. muy lu rafet le roi des arènes waaw loolu moom wax dëgg yàlla. Mhm. jëf jëf du ko gën a rafet tey mhm. ci fi ñu toll. parce que ku ne xam na wujje gi dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak moo Lo. Mhm. te Balla Gaye numéro 2 ku ko tudd tudd Aziz Ndiaye ndax léppi Balla Gaye ko yor su loxoom dafa naa na ba muy dem Makka di ziyaare ji yonente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam di umra ji mhm. moo jàpp Balla Gaye ci loxo yóbbu ko mhm. kon defe naa bu jógee Makkatal Mukarrama ñëw Modou Lo mi nga bi ko gën a metti ci làmba mhm. wala defet yi nga xam ne am na ko te nit ñi duñ ko fàtte bokk na ci digganteem ak Balla Gaye te yooyu yëpp ci ginnaaw loolu defe naa tey bu Modou solee dàllam dem ziyaare ko kon Modou tamit wane na ne moom sportif de haut niveau la et puis wane na ne Sénégal ñoo ko bokk yaa ngi dégg wane na ne ñun ñëpp ay mbokk lañu sport bi liggéey la bu jotee dañ koy def ku nekk am lu yóbbu sa kër mais su jeexee jeex defe naa Modou def na loo xam ne man du ma tey Aziz de xam nga ku mm-hmm. def ndax da mm-hmm. baax da baax na yàlla yokk leer amiin ñu daal di euh, dem euh, ci journal record daal di fa fekkaat ak Reug Reug ki nga xam ne rek moo di Abdou Badji daal di ñëwaat rek ci performance su Reug Reug ci cinq piliers yi Babacar. waaw Abdou Badji moom mooy ancien directeur technique national. ci mhm. wàllum làmb defe naa moom itam ah euh, noonu ñu koy gisee yaakaar ne amul xam parce que li ko def te directeur technique national mhm. mooy ma xam-xamam ci bëre man ko di ko jàngale. Mhm. defe naa tey bu waxee loolu ci Reug Reug defe naa itam ki xam moo wax. ki war a wax moo wax ndax am na kàddu yoo xam ne bu ñu waxee ci mbir rek dañ leen war a bàyyi xel parce que la wax dañ ko maîtriser macha allah waaye mhm. muy dëgg ba rek euh, ñu des euh, ci li ma la wax léegi rek mag dafa baaxum ci mu réew waaye ñi nga xam ne moo di euh, ki nga xam ne moo di Mor Fadam Balla Gaye 1 ak Boy Bambara daal di quitté écurie yi nekk léegi ay orphelin maanaam ñoo xam ne daal ay baayo lañ waaw wuyu ji seen borom xam nga boo nee kiti sax mën naa gars yi mën na ñaan fu ñu kite <laughs> ji dëgg waaye waaye ku dégg booy bambara dégg moo fa dama xam ne nekk ci kaw suuf seen borom loolu moom leer na waaye xam nga yow nag xam naa sa njàngum tubaab maa bëri <laughs> loolaa metti waaye loo ci mën a dégg daal ñooñu ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla xare aljana tey defe naa école de Mor Fadam boo ko déggee Mor Fadam a ko sanc mhm. te boo ko déggee dégg gi dégg Sa Kajoor dégg ñoom Pape Mbaye dégg yeneen ñoom mbaytin dégg yeneen yi mbëri ñoom Fifty Cent te defe naa ñooñu ñëpp moom moo leen formé mhm. ci loxoom kon loolu lu am solo la kon ñuy ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana nga demee ko leen Balla Gaye mhm. defe naa ku ne xam na Balla Gaye 2 xam nañu Elton xam les 2 ñoom ma Mandiaye ñoom ndigal ñoom Youssou Ndour lépp moom it mu def ko moom Balla Gaye 1 nga demee ko lit booy bambara fekk fa tafaa booy bambara bi ñu doon wax léegi ñoom caat ñoom ñëpp ak yeneen xale jaar ci loxo booy bambara kon defe naa daal yàlla leen yàlla yërëm taxaree na aljana voilà Babacar mu mel nii rek euh, yegg si nañ ci càppaandaw bi léegi yow loo mën a tàgg loo bëgg a tàggatoo waaw li may tàggoo mooy santaar yàlla rek julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Sénégal yal na fi yàlla def jàmm def ko si àddina bi yëpp coronavirus bi ñu lakkan la jël ñu tëj ñu suñuy kër yàlla na ko fi yàlla jëlee mu gën a sori dem ba jeex sax kenn bañati koo gis di bëgg ci ñi ñuy seetaan tamit à travers le monde du ñu am seen fay saa su ne maa ngi koy wax yaa ngi dégg di leen bëgg ñoom ñëpp ñoom sama gars yi ñoom suñ fàllu ñaa ca Maroc du ko fàtte di ko nuyu moom suma xarit la ak ndongo Fall ca Italie ñoom ñëpp maa leen di bëgg Serigne Diour ñoom ñëpp fu ci waay mën nekk rek Babacar a ngi lay bëgg di la ndamoo waaye di nuyu tamit waa groupe baax rawatina président bu Massamba Dieye Sora Malick Laay bu Faas ñoom Badara Lamine bu Eumeu Sène ñoom ñëpp Elimane bu Tafatine képp ku ne biir groupe baax rek Babacar lay bëgg di jigéen ña fa wax leen maa ngi leen di bëgg man itam waaw Marème Marème Balla ki nga xam ne moom mooy ami mu ngi leen di nuyu di nuyu ña ne ñëpp ñoom booy ëmmaak ñëpp ñëpp ñëpp ñoom ñëpp maa ne ñoom ngoone bu Pape Diouf fàttewuma kenn képp ku ne ca kër ga rek maa ngi lay jóge di Petit. Ah ouais Attention, Jackson. D'accord.